ma tibbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci kartanal yàlla sof ak yow rek li ma sosoon ak yow te mooy rek li xew di jàmbat rawatina xew-xew bi lëmbee àdduna bi yépp Amérique gi yaakaaroon ne am nañ doole yaakaaroon ne am nañ xam-xam yaakaaroon ne am nañ matukaayu mat nekk premier puissance ci monde bi yàlla wan na leen boppam ne leen xamu leen mënu leen amu leen tey jaaxle nañ ba seen restaurant yëpp tëj nañu ko seen palaasu publique yañ daan dajee yëpp di fa naanee kafe yi nekkoon ay staat ñi daan football yi nekkoon ay palaas ñi fa daan féexlu fii mu nekkoon ay géej ñi fa daan dajee yooyu yëpp tëj nañ ko gis nga ko seen aéroport yi tëj nañu seen vol yi ne demati Europe fu mu tamit seen président ba fu njàqareem rek jëm kaw ña ngay xoote ak wallu kon nag ñi doon xoote naan nahnu ulu quwatin wa ulu basin shadid yàlla wan na leen innal quwata lillahi jamian siin gi feebar bi depare fa ñu jàppoon na ñoo doon deuxième puissance ci àdduna bi jël ne nekkoon tamit première ci wàllu ci àdduna bi ci wàllu koom-koom tabaarakallaahu ba marchandise moo gis ci àdduna bi buy téeméer juróom-ñett fukk ya ba juróom-ñeent fukk ya siin la bàyyee ko yonent bi yàgg ko joxoñ ne utlubul ilma walaw bi siini pour joxe importance su xam-xam ñoom tamit gis nga ko la dee kenn xamut ni mu tollu la ñuy mën a mën a keree ak li ñuy am am xam-xam ak li ñuy ñaw mën a tabax hôpital ci ay waxtu yooyu yëpp tey de feeñal jàngoro corona bi lëmbee na leen lam fa rey tey ci ay nit kenn xamut ni mu toll ay junne junne junne ay nit la rey mat na xëpp na sax juróomi junne nit ndax kon yooyu dee fa ñam fa jàpp tabaarakallaahu kenn xamul ni mu toll ji nga xam ne li leen yàlla may ci doole may leen ko ci alal may leen ko ci xam-xam suñuy doom kenn ku nekk bëgg faa dem ba mu jaral tey nit mën a fay ñeenti million man faa dem tey ña nga yuuxu wàllu la fa dee ëpp na juróom-ñeenti junney nit code bu set daanaka juróom benn téeméer juróom ñaari téeméer France gii ñu yaakaaroon ndimbal tabaarakallaahu tey ñoom ña sàkku ndimbal la fa dee moog Espagne kenn xamut ni mu tollu seen jàkka yaak seen restaurant yaak seen stade yaak seen place publique yëpp tëj nañu ko yàlla daal di wane boppam ne xam-xam biñ leen doon joxañ amu leen ko ndax wa maa utitu min al ilmi illa yàlla di wane boppam ne xereñ a gañ leen doon wax xamu leen ko man yàlla dong maay ki xereñ waaye tamit am am ak koom-koom biñ leen doon jiiñ amu leen ca dara yaa ayyuhan naasu antumul fuqaraa ila allah wallahu huwal ganiyu man yàlla dong maay ki xoomal kon nag gannaaw jël suñ matukaay yi ma la waxoon mu bokk ca moytu bu baax ba benn waay joo xam ne benn géwéla log bu yàlla may ci wax mu ne feebar bi daal ñaari siifuru moo ciy dimbale nit siifuru siis ak siifuru set ñu ne ko siis ba mooy lan mu ne fexe daal ba siis ki sa yaram lépp loo xam ne boo ko defee wala boo fa demee mën na laa tax ñu jàng ñu walla jàngoro ji rek nga siis ke ne duma ko def kon fokk ñëpp xamee melaw ñëpp yore siifuru siis ñu ne ko ak ban mu ne set set bi nag moom mooy kenn ku ne set rek kenn ku ne na set yàlla bam li bam ñu digalee set ni mu yàggee ñu tan lu ko rek waaye léegi de corona bi ñëw na digal ñu ko de kenn mënu kenn mënutu koo téyati moo tax koo ki gis ma ngay raxasoog saabu ma ngay jël kofol ma ngay jël lu nekk tabaarakalaa produit bi di ko di ko diwoo ñetti waxtu yu ne yaa ngi ko def ba ko yàlla waxee ni mu yàggee te yàlla mi santaane woon set lam santaane ku ko def doo tilim mooy ne waxtu wu jot nga jàpp jàpp ga da nga raxas sa loxo yi ngay njëkkee ba mu set nga gallax ndiku ba mu set ñetti yoon xam nga benn cër ku ko raxas ñetti yoon mu set nga sorox ndiku sël mu ñetti yoon su ko defee tamit raxas sa loxo ba ci say conc masaa say bopp korokoro say nopp dooroo raxas say tànk même boo ko defoon suba gi tusubaar jot tojleegoo sopp nañ nga defar ko beesal njàpp li saa ñëw tojlewuloo beesalaatal timis ñëw tojlewoo beesalaatal ba yonentu bi ne dama leen di laaj benn piscine bu nekkoon ci buntu këru kenn ci yéen bët bu set balaa tëdd sangu ca juróomi yoon ndax dana tilim ñu ne ko déeréet mu ne kooku nag mooy kii fonk julli juróom yi bët bu set balaa tëdd julli julli juróom yi julli juróom yooya mu gunge ko njàpp kon ndeke lislaam diine set la ala ku xaal ba sax ñi koy tuumaal naan annazafatu min al iman déedéet loolu du hadis nag moom waaye nag lu mel ni moom nekk na hadis ak tahóoru saturul iman mooy laab mooy genn wàll gëm yàlla diina ji diinay laab la ndax laab moo gën a matale set waaye duwul diinay set ndax mën ngaa set te fekk laabuloo waaye boo laabee rek ñaareel set la mu bëgg sa yére yi ngay sol laab bëgg tamit fi ngay toog laab bëgg fi ngay dox laab bëgg fi ngay jullee laab bëgg tamit li ngay lekk nekk lu laab yële yëpp xalaalan ba la wax mu nekk lu teey loolu ndax mu tax mu mu lay sarfaal ci li ngay lekk jël matukaay ci li ngay lekk ba mat sëkk bàyyiwul ca dara lépp yonent bi jàngale na ko sallallahu alayhi wa sallama su ko defee tamit jël matukaay ci sa cër yooyu ma wax la ngay raxas kon dëgg dëgg daal raxasu baax na waaye man daal su ma sañoon ku xeewu rek au lieu que ngay raxasu bu ca yam ndax raxas loxo rek la waaye faral jàpp rek mag ña buñ gisaan nit di raggu ñu dal ci kawam ñu ne ko li ngay raggu jàppal na la te nag nit ki bu taxoo njàpp wat naa ci yàlla dara du ko jàpp ku taxoo jàpp waxtu wu ne lu la dàqe du la jàpp te loo dàqe da ko jàpp kii nu mënu laa jémmañu ba jàpp la kenn mënu laa liggéey ba jàpp la kenn mënu laa kortu ba jàpp la kenn mënta sànni misal benn misil mu jàpp la man daal jàpp naa ne ku taqoo njàpp ci say waxtu yëpp yàlla mën na laa dimbale corona bi sax da ci mucc du la mën a jàpp kon nag raxas loxo baax na waaye nañ ko far sotti njàpp moo ëpp sens moo ëpp lépp ndax booy jàpp rek malaakal lang la tiim di la ñaanal yàlla te yonentu bi ne cër boo raxas bàkkaar yi nga ca defoon rot ànd ak ndox ma boo raxasee loxo bàkkaar yi newoon ci loxo yëpp wadd nga galax ndiku loo waxoon lu waxuwut wadd ànd ak ndox ma nga sorox ndiku loo fóonoon lu fóonuwut ànd ak ndox ma nga sëlmu loo xooloon lu xooluwut ànd ak ndox ma nga raxas loxo loo laal ci sa loxo bii mbaa nga tàllaloon ko ci lu jëm mu wadda ànd ak ndox ma nga masaa bopp loo tiimoon ci sa bopp bi wadda ànd ak ndox ma nga korokoroy nopp loo déglu woon mu ànd ak ndox ma nga daxas say tànk yi loo doxlu lu mu ànd ak ndox ma mu ëpp sens da nga jële jëlee jële jëlee cag laab te feeg yaa ngi njàpp même boo tëddoon di nelaw yonent bi nee na yàlla dafa lay boole malaaka mu lay jéggalul yàlla ba sa bër set ndax dafay wax ne sa jaam bi li annahu baata taahiran dafa tëdd fanaan laab kon nag nañ soppi raggu bi ak raxasu bi njàpp ñaam benn bal bu ñu rey ñaari pitax jële ca set jëlee ca laab bu bu waxtu wi bu bu corona bi jeexee tamit nag nañ ko continuer rek de waaye nag nit koo xam ne soog rek moo ko mën a xee bu soog ba paasee rek mu continuer nelawaat loolu tamit baaxut te loolu dañ suñ réew mi dañ koo taamu moom daal bu jafe-jafe amee ñëpp xeewu bu jafe-jafe ba xasee wane gannaaw daal ñëppuy nelawaat xoolal ma la joolaa bi fi xewee bees boo duggee ci oto yi comportement bi ni ñaamee ba muy am ak ñaari weer ñëpp bàyyi nañ ko ba ñuy dégg tamit tabaarakallaahu choléra bi ñëpp jëloon seen matukaay ba wane gannaaw ñëpp bàyyi xam nañ ko wan ko gannaaw demeet euh, ak yeneen i feebar yi fi jaar yëpp noonu rek waaye ab jullit dafa war a jël matukaayam fu mun di nekk yaa ayyuhaa llaziina aamanuu xuzuu hidrakum la yàlla wax loolu nag waxtu yëpp la jëlal kon nañ jël matukaay yi bokk na ca fegu moo gën faju matukaay boobu set la bokk waaye nañ ko fa remplacer ko laab bokk na ci matukaay yi ñàkk a def musaafaha comme ki yore corona bi xamoo ko moom tamit xamul ne xam nga ko te ñaareel dafay wàllante ci loxo waay waay kon nañ xem si asalaamualeykum moom te mu ne la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu doy na sëkk loolu moo doon cosaanal nuyoo waxoon naa la ko joxe loxo yama na ko andi ci diina ji keroog ba ñëwee yonent bi ne jaahlu yamaan te seen aada mooy musaafaxa jug leen ngeen joxanteeg ñoom loxo ñi far bàyyi ñu seen aada jooja l'islam dafay accepté aada ju rafet ñu continuer joxante loxo ba léegi. kon nag comme ñu ngi ci woon corona bi ñëw tere ñu ko nañ ko bàyyi bu demee rek ñi continuer tamit nekkaat ca yàqu dara nuyoo bi mi ngi yem asalaamualeykum wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. waaye ci matukaay ya tamit wéet rek wàññi jaxasoo bi ku jaxasoo jaxase ku jaxasoo danga nga jaxase kon nag nañuy bàyyi jaxasoo bi loolu tamit bu corona bi jeexee tamit nañ ko fi continuer dem de bu bu bàyyi tambaambaalu bi bàyyi taxawaalu bi bàyyi sàmmambaayaan gi bul dem fuñ la soxlaahut buñ la fa soxlaa bu jeexee na nga dem yow daal del génn ngir ak farata kese bu farata ja jeexee nga dem nuyoo bi nag asalaamualeykum doy na jërul dóorante ay concu loolu gisuñ ko fenn ci lislaam ñenn ñaa ngay dem seen yi bay dóorante tànk loolu tamit baaxul lislaam santaane wut ko nañu xem ci asalaamualeykum mu ne la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu doy na jërul concu jërul maanaam dóorante ay tànk jëlal sa tànk bi nga dem dóori bal ya donte sax duhul li gën demal nga football yi fekkee yow da ngaa bëgg koo dóor tànk soo boobaa danga nga fa am ñoo dajeeg ñooy dóorante tànk waaye nuyu lislaam ne yaa ngay dóorante tànk loola moom duhut lu rafet yile yëpp nañ ko jël ci matukaay yi bàyyi tambaambaalu bi di génn ci farata bu jeexee nga toog su ko defee foo toll del set foo tollu nanga nga takkoog laab foo toll del dëkkoo ñaari siifur yi siisal ci sa yaram setal ci sa yaram aa ba ca ëpp doole nag ci la yépp nag mooy ñun ñépp ñu tàllal suñuy loxo yu toroxlul yàlla moo koy faj de ne ko yow yàlla sa jaam yu manqué yu bon yii tooñ nañ la xëpp nañ say ndigle bàyyi nañ say tere kenn mënul leen a xettali ku dul yow mu baax mii docteur yi jàmbaar lañ faje lañ mañ mais mënuñoo wéral danañ dem nag kum ca dal demal faju ji waaye nag ta nga yëg ne wéral moom ci loxol yàlla ne yow yàlla ñim dal yow kott yaa leen mën a fa yaa leen mën a wéral docteur yi mën nañoo faj nag yaa leen ko xamal waaye mënuñoo wéral kon yow yàlla ñim dal ñëpp ci àdduna bi waaye waaye yow yàlla mi mën a wéral yàlla nga wéral leen ci sa tur wi nga xam ne moo tudd as-saafi di tekki aju saafara ñi waaye timit ñim dalagut xamul kenn ku leen mën a musal moytu lañ man te yow sa yonumtu bee wax ne moytu mënul dara ci dogalab yàlla bi waaye nag nit ki moytu daña dalal karam rek comme ni yonentu yàlla yaquba waxoon doomam ya rek laa tadxulu min baabin waahidin wadxulu min abwaabin mutafariqa waaye lam ca teg mënulu ma nag mënuma dara ci dogalab yàlla bi man nit laa rek te laa man comme yéen da ngeen a niroo te ngeen siiw na génn góor leen jur bu ngeen duggee ci dëkk bi ndoor nit ñi niñ garaawee seen làmmeñ yi ñu naan xoolal ma fukk doom yi wala juróom-ñeenti doom yu niroo yi ndax Yuusufa nekku ci ak Bunyaamin ñi juróom-ñeent ñëpp xam ne yéen a niroo kenn ku ci nekk jël làmmiñam teg ko ci seen jëmm yi loolu jugul bant waxuma la nit kon nag bu ngeen demee ba jub dëkk ba daal na ñuy jël mbedd male ñuy jël mbedd male ngeen joxante fu ngeen war a dajee loolu bu koy ab yunum tuy wax ngir a jël matukaay ak lam xam ak li ko yàlla may yow xamoo dara amoo dara mënoo dara kon del moytu soo ko defee yàlla mën na laa dimbale nga mucc kon nag yow yàlla yaa mën a musal ki moytuwut yaa ko mën a musal waxuma la kii moytu nag ndax kat yaa maanaam dafa bokk ci sa tur yi maanaam eh, aji fekk ji mu ne mooy maanaam yi mu bokk ci turi faate alwaaqiya waaye tamit almunjiya yaa ko jël mu bokk sa turu téere ba muy faate fatiha saar waawa noona sa tur woowu nag di alwaaqiyatu yàlla nga ci dëgg sa mbooleem ñi jàngoro gi dalagut bu mu leen dal waaye sa tur sa tur yi te saar woowu bokk na ci alkaafiya yaa mën a protéger jàngoro ji ba du hegg ci kenn tabaarakallaahu ci kum heggagutoon yow yàlla mën nga ko bu ñu topp ci ñu mbon bu ñu topp suñu bakkaar bu ñu topp suñu mën a dëngee bu ñu topp ci suñu doy waar suñu bonee yow baax nga suñu dëngee yow jub nga yow yàlla yàlla nga ñu dimbalee jële fi jàngoro jile ñépp rekk gannaaw buñ ko tuumaalee seen bopp na ñëpp wéeru dellu ci yàlla xam ne nag yàlla dong moo mën a saafara yàlla dong moo mën a fekk waaye tamit bokk na ci li mën a jële fi jàngoro ji ñun ñëpp gannaaw buñ tuubee nañ nag soo ki def ndigali yàlla yi góorgóorlu bàyyi tere yàlla yi yàlla kat ku muus la lim bëgg lépp da ko laxas ki ñun liñ bëgg lépp lim bañ lépp mu laxas ko ñun ci liñ bañ lépp li yàlla bañ lépp ku ko bàyyi li nga bañ lépp da ci mucc li yàlla bëgg lépp ku ca ne li nga bëgg lépp da ko am waaye ku nekk ci li yàlla bañ mënuloo fexe ba li yàlla bañ du dal ci sa kaw ku nekk ci li yàlla bëgg mënuloo fexe ba li nga bëgg doo ko am kon nag li gën a gaaw ci saafara bi gannaaw tuub waay waay nañu góor góor lu ñun ñëpp dellu ci yàlla li yàlla bañ nañ ko bàyyi nañ bàyyi fen nañu bàyyi sàcc nekk ndey sàcc ci àll bi sàcc juri jàmbur yi nañu bàyyi bokkaale nañu bàyyi tooñ nañu bàyyi dimbali kuy tooñ nañu bàyyi ngistal yile yaa ngi gis tey kenn ku ne yaa ngay profitoo jëli ay bagage andi tele bi wan ko maay dimbale ñii bu yàlla taxee jaru ko nañ bàyyi ngis tal nañ bàyyi ngi dégg tal nit ki kenn bëggut bëggut ku ko toroxal ku sañoon bokku ca ñay joxe kenn bëggut bokku ci ñi nga ñi ñuy jox nit ki nag soo ko joxee gannaaw si nga ko weer ba pare door ko jox toroxal nga ko nga génne ko ci tele bi mbaa nga génne ko ci réseaux sociaux yi ku ne xam ne fii quartier sangam la xam ne ñii nit sàngam lañ loolu baaxut ni ñu amee sutura ci ñi jàngoro ji dal xamuñ leen ndax duñ leen nangoo tudd ci tele bi dañuy wax lim bi ni mu toll rek nañ ko suturaale ñim dalagut te leen di dimbale. waaye kenn ku nekk gàddu caméra lagar lagari ka fay ko maanaam caméra al ma ñi wane ay bagage ay kotool ak nangam wane ko ñu publier ko tele yi jàllale ko defal ta yàlla tax jëru ko wa ma tafalu min xayrin ya'lamuhu llah alquran la yàlla nee na li ngeen def yëpp maa ngi koy xam su ma ko xamee doy na su ko nit ñi xamee te yàlla xamu ko xamul njariñ kon nag def leen te yàlla tax i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal man yàlla jëf leen ta ma tax li ngeen jëf su ma taxee man maa koy wane danaa ko wan yonent su paree ma wan ko jullit yépp su paree ma wan ko waa adduna bi yépp suñ mag ñu baax ñi fi nekkoon daan wax mbaa ngi daan jëf te yàlla tax rajo rajo amut télé amut dara amut luñ koy mën a publier tey seen kàddu ya ak seeni jëf ya tey moo fees tepp àdduna bi yàllaa ko wane kon nag nañu bàyyi lu ñëw ñu dugal ci affaire yi yeneen yu ca bokkut ngistal baaxut dafay yàq jëf nañu bàyyi nger kenn ku ne place biñ la fa tegee liggéey fa ngir liñ la tegee nañu bàyyi xaste dugg ci réseaux sociaux yàq deru nit ñi nañu bàyyi ay woote ay maqaama kenn ku ci nekk maay nangam maay nangam maay nangam gaa yu baax ku leen mës a xooxee maqaama ñu weddi ko waaye yow tay nga koy xooxee sa bopp mel ni sëriñ ab foo toll sa bopp rek ngay sabee loolu baaxut yooyu yëpp nañ ko bàyyi dafay waral ndax saa yoo wootee maqaama boo yeggut ñi natt la na toog maqaama ba ba ba ngay dee dootoo ca heggati ñi xen la tàngaayu maqaama ba nga gàtt fan dee boo amul sens dem safara moo tax Seexu Tijaan di daw nit kuy wootee maqaama ki mu gën a ragal ci xeetam wi ci ci maanaam ci ci ci xeetu yonantu bi mooy nit kuy woote maqaama kon nit ku baax dañ koy war a wooxele ay maqaama mu koy weddi ne li ngeen may jiiñ duhuma ca dara moomuma ca dara waaye yow yaay mujj di ko xooxee sa bopp jaru ko nañu bàyyi rayante gi bakkan boo xam ne bi ko yàlla bindi tàgguwut la xamoo lu mu war a doon ëllëg nga rey ko ci lu doonul dara nañu bàyyi agression bi bàyyi ëmbal ay xale yu ndaw tëdd ak ñoom nga bañ a gàcc ga ray leen nañu bàyyi am doom du ci lu dunul yoon nga ragal gàcce dagg ko dugal ko ci ay saako yile yépp bokk na ci sabab yu ñu indil musiba yile nañu bàyyi ak rambaaj ci diggante ay mbokk ci diggante ay famille ci diggante ay nit nañu bàyyi ay góor jigéen bañ leen a dooleel ku yàlla may doole nga jëlee ko fi ku yàlla may kàddu nga wax ko ku amul kàddu nga naqarlu ko xam ne liwaat lu bon la lu mën a tukkal àdduna la ña ko defoon ñeenti junne nit rek lañ yàlla tukkal seen àdduna ba ji falammaa jaa amrunaa ja'alnaa aliya saafilaha te tey li ko nekk ëpp na trente millions nañu bàyyi sixaaq ñaari jigéen yuy sëy ne soxlawuñ góor loola musiba la nañu bàyyi puukarewu ak tiitaru amul benn njariñ mbooleem xeeti moy yi mënuma ko tudd nañu góor góorgóorlu bàyyi ko remplacer bokkaale nga wéetal yàlla remplacer san nga wax dëgg remplacer tooñ ga dimbale ku néew doole remplacer tiitar ga jëf ta yàlla tax remplacer njar ga xatte te rekk yàlla rek mooy tax bul ragal ku la bul ragal ku la lépp defal ta yàlla tax nañuy bàyyi xasta yi remplacé ko waxante lu rafet ci waqulu naa naasi xusnan nañuy bàyyi xoote ay maqaama yu kenn xamut bu ko defee tamit tey weddi yooya ku la ko xooyee nga ne ko man jaamab yàlla laa kese la Seex na Tijaan dafa gaa yay bàkk yaay nangam yaay nangam mu ne kulluna naxtaaju ilallah bu ma kenn xooyee ci dara lu dul ab jaamab yàlla su ko defee bàyyi lekk riba bàyyi ngistal bàyyi bakkan yi ñuy faat bàyyi mbooleem xeeti jàngoro yi la yëpp buñ ko bàyyee remplacer ko li ma la wax amul sikk ne corona bi dana fi baaxee ko loolu ci saafara yàlla góorgóorlu def ndigle yàlla yi góorgóorlu ba bàyyi kere yi te lépp luy xeetu matukaay buñ man ah ñi def ko la ñu mënut ñi bàyyee ko yàlla kon nag kenn du yonantu bi sallallahu alayhi wa moo gaaw ci jàngale loo xam ne ñëwagut te bu ñëwee rek xam-xam yépp nangu ko yonent bi sallallahu alayhi wa muy jàngale na jàngoro juy wàlle foo ko dégg bu fa dem bula la dalee bul génn yàgg na xëpp na junne at ak ñeenti téeméer waaye tey mbooleem dakaatiir yi ak atibaawu yi seen xam-xam màcc ci wàllu médecine dañoo mujj xéemu ca loola door di prouvé wax jooja boo jëlee ku ñuy tuddee docteur euh, Larson moom dafa ne wax jooju dafa ko xéem ñu laaj ko ne ko waaw su fekkee ne nii jàngoro jooja dafa nekk ci dëkk lana an moo war état mu ne war na ci état bi ñoom ñu wuti ay soldaar cercle dëkk booba fu mën a nekk ñu wut ba nga xam ne kenn du dugg foofa def fa tamit xisaar gaw ko ba kenn du fa dugg kenn du fa génn loolu la la Laasoon wax moo tax mu ne qaala docteur saati bil junuudi wa adrubin xisaaran ala al madinati li manci duquli ilayha wal xuruju minha xoolal tamit bi yonent bi wax loolu docteur mune ne diraasaat yi da ko yonent bi waaye léegi bu ñu demee ñu ngi koy door a gën a xam bu ñu demee ba loolu am buñ bañee loola moom mu ne loolu moo gën a gaaw ci ñàkk a mën a tasaare jàngoro ja waaye bu dugg amee génn am ku ne dugg ku ne génn nga jëlee fa yóbbu tasaare balaa lu néew mu daj àdduna bi ndax ñu ngi nii nii siin dong lañ ko doon déggee yàggul dara jàngoro gi doxul ba ñëw fii nit a fa bàyyeekoo mu ñëw fii mu jaar fa mu jaar ca Europe jaar fa mu jaar ca Europe ba dugg si fii fu mu dem rek nit ko fa yóbbu amul fenn fu mu yóbbu boppam kon njàngaleem yonantu ba buñ ko defoon ca commencement ba jàngoro ji du tasaaroo kon nag loolu la yonantu bi wax ña toog muñ danañu am yoolab ku dee ci xare su ko defee tamit nag ko fa duggutoon bul fa dugg laaj nañ docteur ne ko waaw xisaar boobu gaaw gi circale bi ñu leen def ba kañ nag mu ne feek ba ñuy déggee jàngoro ja jeex na fa takk ci la ñuy door a war a ubbi buntu yi ndax yonent bi wax na laa yuridu mumridun ala musihin loolu yonent bi wax boo demee ci buxaari yu moo indi hadis boobu ci xaajab fukkeel ba mu tolloog safa téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent imaamu albani solo na hadis boobu demal nga seeti ko ca ah, moom tamit la ah, safa maanaam téere bi as saxiixa téere bi mu tuddee as saxiixa ca safa 93 boo demee da nga ko ci fekk mu ne xadis lu wér la kon yii yëpp ay matukaay la bañ tamit ngay jaxasoo ku yore jàngoro ji dafa daan wax ne bu leen dee leen moytandiku luy indi wàlle dee leen koy moytandiku la adwa wala safra wala hamata la yonent bi wax lépp ngir jël matukaay amul lenn lenn lenn lu mën a lor nit ba du lu yonent bi wax na ca matukaay tax mu ne sax booy naan bul noy ci sa biir pot bi ngay naan mu ne loolu dafay indil jàngoro yow mi koy naan te xamoo ko buñ demee ba léegi naan bu kenn tusooli ci musuwaar ba ko yonent bi waxee kañ la yonent bi tere na nit kiy tusooli noonu rek bàyyi ko muy dem ci air bi ku ko noy mën nga ko jox jàngoro waaye dafa bëgg nga muuree ko sa loxo bi kaana idaa atasa rata wajuhu bi yadihi loxom bi la ko daan muuree bu dee loxom nday joor bi biir gi bu dee loxom càmmooy bi biti gi moo tax mu ne yonentu bi naa def kaana idaa atasa rata wajuhu bi aw bi sawbihi benn mu muuree ko loxom mbaa mu ko yëreem waaye tamit day wàccee baatam nànk wa xadda biha dafay wàccee baatam du du ko du ko jël tissooli goo xam ne foo tollu dégg ko kooku hadis la boo xam ne imaamu tirmisiyu moo solo hadis bi boo demee tamit imaamu albanise wéral na xadis boobu waaye gis nga ko tamit yonantu bi ak bébbali bébbali sax nit di def jël na ca matukaay jàngale ko ci xadis boo xam ne abi saïd al xudri moo ko génnee yonantu bi ne isa tasaaba ahadukum fal yada yadahu ala fihi fa inna shaytaana yadxulu maa tasaaubi mu ne kenn ci yéen sax buy bébbali na jël loxoom dëpp ko ci gémmiñam waaye saytaane dafay duggaale ca biir bébbali ba su boobaa nag bu la bu la ca saytaane duggee rek musiba fekk la ca kon yi la yëpp lislaam mi ngi koy jàngale ngir bëgg a jël matukaay dem na balay tere sa matukaay ne sa kawar yi nekk ci sa biir bakkan bi sax bu koy dagg mu ne wes googu ngay wes safare bakkan yi mën na laa indil ay góom ci sa biir bakkan bi yu doon too koy tere laa tantifu siara alladi yakunu fi l anfi fa innahu yaxlusu l ukulata walakin qassuuhu qassan dagg leen ko dagg gu nànk waaye bu leen ko di buddi man na laa andil problème feebar ci sa biiri bakkan ngir rek jël matukaay gis nga ko tamit nga rag matukaay mu ne ku gis luy lor ci yoon toxal ko loolu la yonent wax mu gëm yàlla juróom-ñaar fukki xaaj la ak lu teg ba ca gën a kawe mooy laa ilaha illallah ba ca gën a suufe mooy nga gis dëkk wala xeer wala kàmb gu mën a lor nit nga suul ko moo tax mu ne al imaanu bid'un wa sab'una soxba afdaluha qawlu laa ilaha illallah wa adnaha imatatul asa an tariqi muslim moo indi hadis bi dama ci muxtasar da nga ko ca fekk ca safa fanweer fanweer fanweer li safa la nekk mooy safa 30 kon da ngay xool tey benn xeer wi ngay romb ci yoon di ko xeet nit mën na caa ñëw fakkastalu dabbu mën naa nekk juróomi nit kooka tamit dem bàyyi ko fa keneen ñëw fakkastalu pooj ba pooj ba maanaam rëq ñaata ñaataa ci mën a dee ñun nag da gis benn mbaam gu dee ci tali oto ñëw accidenté sa ñëw teggi ko keneen ñëw teggi ko fa lay nekk ba ñu bari dee ca ñu door koo toxal waaye kenn ku mën a taxaw ak otom bi sax ut ñu ko jàppale mu toxal ko say wan wa mais man kat loru naa ci wala namoon naa cee loru mais maa ngi koy fegal sama moromam nit bu xeboo sax du bu mu doon jullit ndax bu ci kenn lorooti yonent bi nee na gëm yàlla juróom-ñaar fukki xaaj yu teg la ba ca gën a suufe mooy toxal aw luy lu mën a lore rek ci yoon xoolal loolu yool bi ci ne ak ñun tey nañ ko sàgganee gis dëkk ci yoon mu mën a jam nit nga dindi gis xeer mu mën a jam nga dindi gis kàmb bu bu ñu mën na caa dugg sura nga suul gis mool nga dindi gis benn mala bu dee ci kaw tali bi mu mën a sànq nit nga dindi ak a yool am na benn waajoo xam ne xoor na ba bëgg a dee julli ba bëgg a dee foogoon loola ko yóbbu aljana ba mu dee benn waa gis ko ci kas nu sa borom def ak yow mu ne jàqoon naa lool li ma doon def daal ndeket dara dara baaxut lenn rek la la ma sama borom xattee dugal ma aljaana damaa fekkoon lu mën a lor ci yoon ma toxal ko kon loolu xoolal loolu rek ni mu amee doole ba tax na daxala rajulun aljannata fi xusni shawkin asaaxahu min tariqi almuslimina benn jullit benn nit dugg na aljaana lu ko dugal aljaana dégg rek la gis benn bànqaasab dégg bu mën a lor ci kaw yoon mu toxal ko kon nag ibra la inna fi dalika li zikra liman kaana lahu qalbun aw alqa sabaa wa huwa shahid ma ñuy bàyyi xel léegi léeg nga foog nga nga nga jël lu rëy fekk yóbbuwul la fenn nga gis lu xeebu fekk mën na laa yóbbu fu sore sore sore sore kon gis kuy lor luy lor nga toxal ko kon yow mii lore nag waroo dem foo xam ne boo fa demee lor fa nit ñi boo yoree yaa ngi wóor na la am nga feebaru corona bi boo demee ci jàkka ji wàllu ko nit ki mën nga ko wàllu ilimaan ci mën nga koo wàll ñi nga dend ak mën nga koo wàll ñi nga romb ñëpp yow bala ngaa dee man ngaa rayaale téeméeri nit téeméeri bakkan yooyu bu la ko yàlla toppee foo ko mën a jaamoo yàlla foo ko jële kon matu ko diina ji jërul xóotal yonent bi nee na ad diinu yusrun diina lu yomb la ku ko jéem a tatal di ko jang-jangee da nga mujj daanu diina ji moom du daanu ba pencam yàlla kon yi la yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi koy jàngale di ci bàyyiloo xel nit ñi ñu jël seeni matukaay ba mat sëkk ci lépp lu ne kon daal euh, moom daal moytu rek lu waay man ci moytu defal ci bañ a jaxasoo bi bañ a joxante loxo bi foo tollu na nga boole laab ak set del génn lu dul farata bu farata jeexee nga toog sa kër bàyyi tambaambaalu bi te nga tuub jàpp ne maa fi indi jàngoro ji dellu ci yàlla su ko defee góor góorgóorlu ki def ndigalam yi góorgóorlu tamit ci bàyyi tere yi bu ci kenn xeet kenn ki sa ñaan mbir la moo xam ne ñépp la kon nag bu ci kenn xeet boppam loo tuuti tuuti ñaanal loo jàpp ne ko dox dinga nga ñaanal yow mi tuuti te amagoo bàkkaar sax yaa ëpp garante kon na ci ñëpp ñaan lu ci ñëpp lu amul dara dara lu ko fi mën a jëlee lu ñëpp ñu bokk torox lu dellu ci yàlla kenn ko ñu ne jiiñ ko sa bopp bañ koo jiiñ sa morom su ko defee tamit ñu bokk tàll ko suñuy loxo ñaan ko ndax yàlla nee na bu ngeen ma dul ñaan sax du ma leen faale qul maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum waaye kon nag lañ cay déggee su ngeen ma ñaanee ma faale leen ku yàlla faale sa lépp baax kon nag nañu ñaan yàlla kettali ko ci moom dimbalikoo ko moom moom kott dong moo ko fi mën a jëlee du teree nag sabab yuñ xam ci luñ luy mën a fekk mën laa protéger nañ ko def lépp koo xam na dal na la seetil médecin yi nam gën a gaawee nga dem faju ji waaye te nga yëg ne médecin yi faj lañ man waaye mënuñoo wéral yàlla dong moo mën a wéral kon mbir mi daal ci yàlla la bàyyee koo ci yàlla dong tamit ci lay dellu waaye bàyyee koo gin bàyyee ci yàlla suñu sabab yi ñu ngi ci ndax yàlla wax na ci alquran ne lu lu leen dal ci lu baax ci man la waaye lépp lu leen dal ci lu bon ci yéen la loolu alquran na ko wax maa asaabaka min xasanatin fa min allaahi wa maa asaabaka min sayiatin fa min nafsika muy aaya bu naqaree dégg nag ba ko yàlla waxee ñaari école ba ñetti école dañoo teqalikoo ci déggin ji école bu ñu tuddee jabariya ak qadariya ak ahlu sunna qadariya ak jabariya ñoom jabariya ñoom dañoo wax ne jaam bi ci boppam aslan mënta jëf dara lu baax lu bon lépp yàlla la jaam bi mënta mooy yàlla jaam bi mënta topp yàlla ngi nag kenn gënu a sànku ñoom dañoo rotal toggeef yi ci jaam bi ñooñu ñooy jabariya qadariya ñoom ñu ne yàlla bind jaam bi mais jaam bee bind jëfam ñooñu kenn gënu leen a riir su fekkee ne ron suuf si am na fi ko mën a bind ku dul yàlla te wallaahu tax ma maa na foo koy dugal ñooñu dañu dañoo sànku waaye ahlu sunna nag ñoom dañ ne yàlla daal ci boppam moo bind jaam bi ba pare installé ci jaam bi may ko kartan lu mën a fàggoo lu baax ak lu bon bu ko nammalee xiw mu def lu baax mu yokk mu mu mu mu payoor ko ca fay ko ca bu ko nammalee bu def safaan ba mu def ko su ëllëgee bu ko dugalee safara tamit tooñut ko ndax alalam la soppandiku te ku jëndal ganaar rendi ko kenn du la wax da ngaa tooñ ci bind nag kon bu rayee dugal safara kenn du ko wax da tooñ ndax lim moom dong la jëfandikoo waaye jëfandikoo jëfi kenn ci lenn waaye nag mu tasawifuna seen ak teggihin ñoom bu dee lu baax ñu jël lépp jiiñ ko yàlla bu dee lu bon ñu ne ñu jiiñ ko seen bopp moom la moom moo dal yonentu yàlla Ibrahim moo dal yonent euh, maanaam moo dal xadir moo dal gaa yu baax yépp kenn ku ci ne rek buy lu bon rek nga nga nga maanaam nga nga nga nga nga jiñ ko sa bopp. ah gisoo ko ba muy yonentu yàlla Ibrahim mu ne yàllaa ma bind moo may jindi waaye feebar nag mu ne feebar bi maa ko teg sama bopp moo tax mu ne wa idaa maritu fa huwa yasfiini waaye waxu ne yàlla bu ma feebarloo ah, allazi wa xalaqani wa yahdini moo ma bind moo may jindi waaye wa idaa maritu su ma feebaree. kon jàpp na ne sax lu def lu tax mu mën a feebar lum def ba feebar war ko caa fekk xam na lu mu waroon a def lu mu def ba loolu fekk ko ca mbaa lu mu waroon a def lu mu bàyyi looloo waral mu jël damir ja wéeral ko boppam moo tax mu ne wa isa maritu fa jeex waaye gis nga ko tamit boo demee ca xadir ak yonentu yàlla Muusa boo jàng seen histoire ñoom ñaar ca tabaarakallaahu sooratul fi boo ca demee ah, ñoom ñaar ah, ba ñu dajee xadir di jàngal yonentu yàlla Moussa leçon yu am solo yooya nga xam ne suratul kahfi moo koy jàngale mu dem ñi ànd ñoom ñaar romb benn bakkan boo xam ne deful dara xadir jékki-jékki ray ko mu ne ko aqatalta nafsan sakiyatan bi xayri nafsin foo ko teg ñu demaat ba ci kanam dugg gaal te sax amuñ paas dañ leen a yóbbuwaale ñu dem a dem ba ci yoon mu commencé xotti gaal ga mu ne ko waaw léegi yow tamit aqaraftaha li tuxriqa ahlaha da nga koy xotti gaal gi nag ngir bëgg a labal ñoon ñi ci nekk foo ko teg beneen bi ngi dem fekk ab miir buy bëgg a daanu ah fekk foofa alal ju bëre nga fa mooy trésor waa waa waa réew ma fekk na ñaari ñaari jirim seen baay seen alalam lépp foofu la leen ko dencal mu jubbanti miir ba te booba soxla nañ lekk waaye daal ñooña bañ leen a jox dégg nag mu mu jubbanti miir ba mu ne ko de yow bu la neexoon kon nga man cee fayeeku ñun nag ñii man cee jënd añ waaye mu ne ko yow lii nga may laaj ma liggéeyal gaa yi yàlla nga di may wax naa fayeeku tey ma teqali koog yow de ah yow yaa ngi nii liggéeyaloon doomi Suaybu ya ca seen teen ba keroog ba nga leen di nandal te fayoo ko dara xool la sax ne inna abdi yad'uka léegi si ajra ma sakayta lana lu nga bañ yow nag tey ma def lii nga ne damay fayeeku kon nag qaala hadha firaaqu bayni wa baynika sa unabbi'uka bi taawili ma lam tastati' alayhi sabran waaye li ma ci amal solo pour nettali la ko lañ ca def muy lu baax ñetti ñetti liggéey lañ liggéey waaye gis nga liggéey bi nga xam ne dafa xaw a doy waar dafa koo jël wéeral ko boppam gis nga ba ñëw ca gaal ga dafa ne amma safinatu fa kaanat li masakina yaamaluuna fi lbaxri xoola mu ne fa arattu an aibaha ayib bi ayibal gaal gi mu ne man man namm koo ayibal wéerul ko yàlla de waxut fa araada waaye fa arattu la wax waaye ba ñu demee ba nga xam ne muy problème mu rey xale bi wa amal xulaamu fa kaana abawaahu muminani fa xasiinaa foofa mbooloo la def an yuhriqa ma tuxyaanan wa kufran mu ne fa arat naa foofa waxut fa araada mais fa arat naa ñu mu ñun. waaye gis nga tamit ba mu demee nag ci wàllu xale bi mu ne ba mu demee ba ci xale bi lu wax wa amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fil madinati wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuhuma saalihan lu mu teg mu ne fa araada rabbuka an yabluqa kon gaa yi yàlla yi lépp luy indi ak manki dañ koy wéeral seen bopp. lépp luy indi ak luy tegtale ak mat ak mbaax ñu wéral ko yàlla donte lépp ci yàlla la baxe ko kullun min indillah waaye fale mu ne fa arattu waaye an ahibaha ji moo tax fii mu ne fa arat naa an yubaddilahuma fii nag mu ne nag fa arada rabbuka door door a jël mbir mi wéral ko yàlla kon nag gis nga ko mbir yëpp ci yàlla dong lay mujj moo tax ba mu jëlee ne man ma namm mu ne ko mel ni yow yaa da ngaa xam carton bay namm ma demaat fee mu jël mel ni dafa def ak ak ak bokkaale mbool ne fa araat naa ñun ñu namm ah waaye ba muy daaneel dafa ne fa araada rabbuka foofa nag waan waan ila rabbikal muntaha mooy daytaloo waaye lépp fa la mbir ma yem kon nag yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal ñu taysiir defal ñu naataange defal ñu barke xiir ñu ci boppam wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu